lion de Guédiawaye le Marodi bi nga xamante ni moo nekk laa ilaha illallah fële ca kuri hal pulaar mbaa booy nee na ko booy fii laa lay jaalale booy bi ni ko am sama tànk ko mënoo ci dara la bataille est lancée li ci des nag doon laa ilaha illallah bi combat neex na ba pare bala mbaa booy bala gay dë non combat la boo xam ne si biir lamb ji dafa doy waar ndax bul fàtte

wala moo leen féete càmmoñ léegi Adama Diouf gis ngeen ko moom mbapat na lu yàgg. ñoom ñaar seen bëri Malick si mbapat lay sottee. Ah. ah Adama Diouf daw na jël ko daw na jël ko daw na jël ko. Aliou Seye bañ na Aliou Seye bañ bëre suuf Adama sànni na ko oho Aliou Seye numéro 2 samp na boppam boppam bi jaaw na Aliou Seye numéro 2 bu waalo. daan na Adama Diouf. daan na fëgala kon nuuju waa ji dafa waroon a song si jël tànk bi teg na léegi il faut mu nuuju ko arrière pour kii bopp bi ñëw dugg suuf bàyyi ko. Ah, combat bi ba pare. Balla Gaye 2 Balla Gaye 2 ñaari 2 ñaari la demi lañ koy plaqué génn nañu ca géew ba ca biti la ñu yegg arbitre bi woowaat na leen ñu xaar tuuti. waaw si biir la demi na super étoile jël bu rëy jël bu set. waaw ngoog Ballo super étoile dafa mu daw continuer soogu mu reculer mu plaqué ko daan ko ca biti ñu ne ren waaye mu continuer action yëg ci kawam kon yaakaar naa ni. togg mi ci biir laabe waaye lépp ca biti la jeexee. Eumeu Sène a ngi ànd ak Jordan. ko bal Saloum bañ na jëm na ko xar taf na ko yëkkati na ko Saloum bañ na Saloum bañ na Saloum bañ na Saloum Saloum daan na Garga Mbossé. ana bopp la. oh, oh, oh. damm sa baaraami morom épreuve de force ku ne yaa ngi jaay sa morom doole Tonnerre bal na loxo yi door na Yékini door na Tonnerre dool na ko mu daanu jogaat na taxawaat na Yékini junior Tonnerre Yékini a ngi door Tonnerre a ngi door Tonnerre a ngi koy door Yékini Tonnerre door mu daanu door mu daanu door mu daanu door mu na ko mu daanu laa ilaaha illallaah Tonnerre am na doole da bu bu njëkk avant mu koy mu koy taw de bout en bout. Des essais de coups terribles. Tonnerre, ah, dans son premier temps, de courage en essayant de s'agripper. Tonnerre le relâche. Enchaîne. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Jusqu'à ce que Yekini Junior tombe sous les coups de tonnerre déchaîné.